la loi sur la criminalisation de l'homosexualité. Ah, ça a ajouté quand même l'actualité. Hier seulement, je crois, le bureau de l'Assemblée s'est prononcé pour déclarer irrecevable cette proposition de loi saugrenue, proposition de loi insolite, étrange. Mais vous savez, le ridicule ne tue point Mame Makhtar Gueye et compagnie le regroupement des chômeurs religieux avec l'association des l'association des escrocs religieux les chômeurs religieux avec les escrocs religieux avec certains imams escrocs malhonnêtes truands des imams je dis entre guillemets qui sont dans certaines télévisions pour raconter leur vie alors qu'ils sont que des faussaires des malhonnêtes et mal et d'autres qui sont des entre guillemets des djihadistes des terroristes je pèse bien mes mots des terroristes des terroristes des djihadistes j'ai même vu dans le groupe quelqu'un qui a été arrêté pour terrorisme qui est quelques années en prison et qui a eu la chance de rentrer chez lui après énormément de pression j'ai vu parmi eux de gens qui ne veulent que l'instauration d'un État islamique au Sénégal. Des gens qui veulent une république islamique avec des députés en mal de popularité, des députés qui n'ont aucune base. <laughs> Regardez mon doigt. Des députés qui accompagnent ces activistes religieux, entre guillemets, qui sont rien de, qui religieux et qui ne sont point des religieux, mais des escrocs religieux qui font le tour des dignitaires religieux, des notabilités religieuses. Ils vont voir nos éminents marabouts que nous aimons tant pour raconter leur vie. Je m'adresse maintenant à ces marabouts. di wax sama sëriñ sëñ sëñ mu Mbàkke borom ree ju neex gi yàlla na fi yàgg ci wér ñooñu di ñëw di taxam tambaambaal si amuñ liggéey nga xam ne liggéey mooy di di wax rek ci xamul ci dara moytu leen ñooñu li ngeen di wax yëpp dara du ci dëgg sëñ Bay Si Mansour ah sama xarit yi ñëwee dëgg borom ci waaw nango maa ngi koy nuyu yàlla na fi yàgg ci wér sama xarit Sëriñ Mbaye Ñas sama frère di bokkal ak nangaan bokku dëkk di doomu Baay Ñas waa waa Laayeen yi ak Seydina Isaa Laay Kuuta Njaasaan waa jàng bi yéen la yoo am na loi boo xam ni depuis mille neuf cent soixante cinq ak mille neuf cent soixante six dañ ko tabax liggéey ko ni képp ku def góor jigéen yoon dina tas kaw tëj la tëj yu méttee métti dañ la tëj duma président Macky Sall def ci fi Barack Obama ñëwee ni ko damaa bëgg président nga daganal sëy góor a góor jigéen ak jigéen mooy nga daganal góor jigéen Macky Sall ni ko ba bi ma fiy jógee ba ma fiy jógee tant que maa fi nekk président loolu mënu ma la koo may loolu mënul nekk ça n'aura jamais lieu le Sénégal ne va jamais légaliser l'homosexualité le Sénégal est profondément religieux. Et les vertus cardinales de notre peuple ne nous permettent point de légiférer dans ce sens, de légaliser l'homosexualité, de la dépénaliser. Non, a dit le chef de l'État. Non, a dit notre auguste Assemblée nationale. Félicitations à mon cher ami juriste. Maître Djibril Wade le député africain honorable député sénégalais merci pour ce travail remarquable que vous avez fait au sein de l'hémicycle pour rejeter cette proposition insolite de criminalisation criminalisation de l'homosexualité mais daf leen liggéey tambaambaal bi doy na